kuréel goo xam ni sëñ Babacar Sy Mansour moo ko sos boole nu ci ñu yor affaire communication ko ànd ko sëñ Abdou Hamid Sy dégg ngeen léegi euh, directeur général euh, ki nga xam mooy euh, Makhtar Cissé wax tudd suñu tur ci li nga xam ne mooy liggéey bi am ci mbégte ndax bi ko góor gi di bi tànn jamaatul nuur ñun ñëpp ku ci nekk dafa laa woo fekk sa responsabilité mu jox la ko ñu ko dee doxal mais bu fekkee ne dañuy am ku ñuy gërëm ginnaaw ban sant yàlla jur Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam gërëm ki nga xam ni mooy euh, xalif ak njabootu Maam Seydi parce que ñoom ñoo commandé li nga xam mooy liggéey bi mais commande gërëm euh, jullit yi pas taalibe Tidiane mais jullit yi jullit yi gërëm leen ndax lii bu taxawee seen alal a ngi ci bu nu fàtte mukk jaaykatu caaf bi wala géej gi wala jaaykatu mango bi nga xam ni dafa am ñaar téeméeram dugal ko ci jumaa ji muy wone ni bu amoon milliard dugal ko ci jumaa bu nu fàtte aussi sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides cent millions yi mu joxe yooyu yëpp moo lay tegtale ni réew mi diine def ci am solo te nag sëriñ bi remise symbolique des clés yi ñu ko jox dafa tombeek 14 septembre waaw 14 septembre anniversaire Mamadou mais 14 septembre ci leen suñu fundraising bi ci leen ko commencé 14 septembre loon ni nanu door levée de fonds yi 14 septembre lañ ko jox li nga xam ne mooy mooy mooy caabi symbole la parce que moom jumaa ji mu defoon daf ni woon ci déclaration bu ma sa wax jumaa ji de sama yéene ak yéene jullit yi mooy mu àgg yal na ko yàlla àggale ci képp ku fi teew ba ci sëriñ bay sax bu dee moom mu àggale ko ba mu ne sëriñ bay nag tudd ñi ci des ñëpp moom mu ñëw ni nan door jumaa ji kon bu àggee nii dañuy sant yàlla mais sant aussi la presse parce que là la presse a joué un rôle important relais bi ngeen nekk ci li nga xam ni mooy démultiplication message yi ba ñu mën koo jot ci réseau sociaux yi ci yéen am ngeen ci cër bu rëy boo xam ni yéen nag maçon yi ak ñun ñu doon topp ci fi ñoo ci bokk tey gàcce ngalaama ñu leen di remercier ci lii ngeen def parce que couverture médiatique bi bu ci nit ñi jotee tey ba ku nekk bëgg jël sa alal def ko ci ci ngeen bokk je pense que au nom de du comité de pilotage au nom du président Makhtar Cissé comité de pilotage ak l' ensemble des membres ñi ngi leen di remercier sant leen di leen wax ni nii rek la parce que diine dafa am solo ca diine nag li leen fi indi gàmmu gi la lii ci la bokk mais gàmmu gi moo leen indi kon bu mënee àgg ba nit ñi di toog seen kër bañ a tukki bala ñëw mu mel ni ñi ngi Tiwaawan yéen la parce que moi je suis homme de presse donc je sais ce que vaut la presse actuellement moom bu ngeen vraiment loolu moo la doxoon bëgg leen ko jàppal. mu tombé tamit journée bu symbolique ñuy fàttali ko génn àdduna maam Abdou Aziz Sy Dabakh su ndax mën nga ñëwaat ci œuvre am naka la ñu mën a royee ci moom pour mën a am Sénégal. bu fekkee ni da ngay wax unanimité ku ko am mooy sëñ Balaz Malick Dabakh mooy le trait d'union entre les différentes familles religieuses yëg nga ni dem na Touba imam Touba jiite ko yëg nga ni sëñ Abdoul Ahad Mbacké fekk si na ko. yënga ni seeti na maam laay ni ko dinaa ñëw seet si la bis sàngam ci suba ga teel mu ñëw fekk fa Cheikh Sadou Abi bi ñu ko dee jullee fii dafa ñëw fekk jataay boobu kooku uni unité bu ñu ko dee wax moom moo ko symboliser góor googu nag moo waxoon ni bu fekkee ni sama jëmm ji mën naa fees safara naa dugg safara ñëpp dem àjjana góor googu moo waxoon ba ne le pouvoir et dans la rue le pouvoir est dans la rue mu wax li nga xam ni moo tax étudiants yi delluwaat ci biir kër yi góor googu lu sëñ Fallou Mbacké waxoon bi ñu indi grande mosquée de Dakar ni leen bu ngeen bëggee ko ci dem di jël sëñ Abdou Assane de ñëw mu jàng discours ba yéen sax journaliste yi yéen a naan euh, euh, li l'histoire s'est répétée mais ak l'histoire s'est répétée ak doomam euh, sëñ si Sy Dabakh góor googu moo waxoon Abdou Diouf nanu tëj baar yi kabare yi nañ leen tëj. ndax réew mi àgg na ci bekkoor foo xam nañ ko tëj joxe ay ñaan ñu ñaan mu taw góor googu moo ni woon sécheresse bi àgg na ci réew mi foo xam ni waa àll bi ak néew doole yi sonn nañu mu délégué rawaan mbay bi ngeen xam institut islamique Serigne Lamine Diop ancien ministre wax leen ni képp koo xam da ngay joxe na ngeen ko jox ñooñu ñooñu nag choix bi mu def mooy la vertu enseignement bi mu joxe Serigne Lamine Diop yàlla yàlla yërëm ko yi rawaan mbay yàlla na yàlla dëgëral ko loolu mooy la vertu mooy wóor mooy jub mooy ànd ci dëgg tey wax dëgg te di ko def te nangoo liggéey andi délégation ngir mun a teewee mbir mi représenté état bi pour wan leen ni peut-être ñëw na ngir rek ci joyau bi nga xamante ne àdduna bi yëpp am nañu. oui mais am na ay préalable quand même fekke naa ay réunion ay jataay La première réunion que le comité de pilotage a eue avec le Premier ministre, c'est au niveau de la primature. ñu pro ñu won ko projet bi wax ko fan lañ ci toll mu ni li ko enchanté ci ci ci ci projet bi mooy la centrale solaire bi nga xam ne mooy supporter coût électricité bi fii ak këri diine yi ba la surprise ñu koy jaay seen Senelec waxoon nañu ni bu amee jot dina ñëw parce que li ko wóor mooy chef d'œuvre bi kuy jullit ku ne war na ko am keroog ci daje bi ndaje moom primature daf ni jumaa Tiwaawan dina tegtele àddina ari yi rek ñu ëpp ñoo am diine mais ñun kenn ëpp nu diine ñu jóge ci bii nii nekk nii benn euh, comment on l'appelle euh, non du nappe phréatique am na y un terme y a un terme qui est très souvent euh, moo koy mooy alimenter ndox mi fil forage forage début forage bi moo construire fii et nooy en partenariat avec la mairie de Tivaouane pour bu amee réseau bi amee problème forage bi alimenté ko mooy la centrale solaire dont la banque islamique est venue en appui pour ñu mën ko def pour éclairage bi kon bu us bu premier ministre Ousmane Sonko ñëwee bërki démb premier euh, le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ñëw fii day wone ni réew mi nanu jàpp ni kilifa diine dafa am solo dafa am taxawaay koo xam ni bu ne kaay leen wuy si ma say way jur way juru keneen wuy ko xale yi fuy si ko en grand nombre ku yëkkati kaddu nanga xam fan nga koy teg boo ko jëmee ci ñoom ñetteel bi ci des mooy fàttali la yow fàttali leen yéen ni leen Léopold Sédar Senghor bi muy ñëw fii Lamine Gueye di ko fi indi xamuñu ko sëñ Babacar la fekk fii ni ko damaa bëgg damaa bëgg laaj réew mu ne ko demal sëñ Fallou ñaanal la mu dem sëñ Fallou ñaanal ko mu nekk président de la République combien de temps ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans mu nekk président catholique bu ko diriger xanaa loolu war na doy illustration beneen bi ci des bi réew mi sonne kilifa diine ñoo woote. quand il y a eu les échanges politiques mais sëñ Mountakha Mbacké Touba la toog yónnee ci Ousmane Sonko mais loolu ku mu jàngul nga doy ni ñoom ñii mën noo dem sans sëriñ si da ngay juum dangay nax sa bopp. te ñoom gëm nañ ni sëriñ si am nañ taxawaay ci réew mi gëm nañ ni tamit sëriñ si am na nañ influence ci jeunesse bi les plus grands agriculteurs producteurs d'arachide ci réew mi bi ñu koy commencé ay sëriñ lañu loolu mooy illustration wu le pouvoir temporel le pouvoir spirituel spirituel war na nu mën a lëkkaloo ñu utiliser les terme bu kenn jox ni sëriñ ñàngam wala sëriñ ñàngam gis nga nit boo ko bañalee sa téeméeri junniy moroom nangul ko war ngaa xoolaat sa bopp merci mais merci beaucoup merci. alors mu nekkoon. Euh,